waraloon ñëw bi mooy àndax yéen bi nga xam ni aussi ñu koy faral gi def depuis ñuy liggéey liggéey bi dinañ fi faral di yéen ñu ñëw wax yéen mais tey ñëw bi daanaka ñun ñëpp ñoo ko sàkku woon si bi nga xam ni kaddu woon nañ ni yenn quartier yi Ndakaaru amoon na quelques jafe-jafe si wàllu alimentation bi mais tamit pour ñëw tamit ngeen si li li ngeen la demandé woon gën a xool euh, tontu yi nga xam ni mooy pexe yi nga xam ni gouvernement bi mu koy indi pour mu saafaraal si diir bu gudd jafe-jafe ndoxu population yi donc tey moo waral lii ñëw ànd ak yéen xool li liggéey bi fan la toll muy usine Kër Momar Sarr bi nga xam ni capacité bi rëy na lool tey ñu toll ci cappaandawu gi liggéey bi ñuy commencé wax ay essais semaine passée samedi euh, def nañu euh, raccordement ligne électrique haute tension bi nga xam ni gouvernement bi def na si alal bu takku tey ñu ngi commencé essayer fii ci usine Kër Momar Sarr ñu am yaakaar ni fii ak été bii ñëw euh, bala tàngaay bii di ñëwaat avant le mois de juin usine bi ndox mi dina mën àgg dakaar mais bale boobu il faut que pacc bu nekk ñu mën ko essayer du liggéey boo xam ne du benn fan du benn weer du benn at liggéey la boo xam ne depuis ñaari at ñoo ngi si état bi jox ñu xaalis bu doy kamit pour ñu mën ko doxal donc euh, essais yi dina am ay weer ndaxte bu ñu essayé lii ba pare il faut que ñu jël ndox mi dugal ko si canalisation yi deux cent seize kilomètres la deux cent seize kilomètres à un cinquante de diamètre loolu li may wax sànq un million de un milliard deux cent millions de litres ndox nga ñuy soxla pour raxas canalisation yi buñ ko raxasee ba pare ñu defaat si ndox nag javelise ko pour que ñu désinfecté ko pour que ñu mën si commencer gaf ndox pour population yi mën koo naan donc loolu tamit mu nekk étape bu am solo parce que jox leen ndox bu sell moo tax tamit ñu jóg ñu am yaakaar ni liggéey bi su paree ay ati at vraiment dina saafaraal euh, mbirim bu baax wante yamuñu foofu fii wax liggéey bi ñu koy ndox mi di àgg Dakar ndax Sébikotane la ndox mi fa lañ koy jébbal seen o commencé na liggéey tamit pour xool naka la mën a Euh, indee ndox mi yëpp si kër yi parce que tout temps se basant si réseau bi nga xam ni mooy existe tey akaaru loolu toll si huit mille si huit millions euh, mètre réseau ndox moo nekk Dakaru naka la mën a def pour que mu optimiser loolu commencé na ko si à travers une modélisation une modélisation hydraulique pour que mën ko optimiser loolu ñu ànd seex ñoom tamit pour gën a doxal liggéey boobu pour que ndox mi mën a am njëriñ si ñëpp.